say repères yu bari day ñëw macha allah ko koy grand salle Oulimata looy wax si combat Papa Boy Djiné ak Jokkel ak ak Jokkel dañuy njëkkee ci Papa booy Djiné mhm. barki démb rek yaakaar naa man ak yow ñu ngi ciy waxtaan bien sûr waaw waaw waaw ay situation yu difficile mhm. muy suñu rakk ci làmb mhm. ñu koy masaw di masaw tamit soxnaam mais ma gis ci moom ngëm yàlla papa way ngëm yàlla ak dal mooy du ñàkk ñànki du ñàkk ba wax lu ñaaw mhm. lu mën a ñëw lu dal ci kawam lu coow li bari bari mhm. dafay feddali kóllëreem mhm. ak soxnaam muy nit ku diiñ ci ay waxam xaw ma ko de xaw ko xaw soxnaam loolu mooy dëgg yàlla am naa benn ñeewante ci ñoom mooy gis nga nit ñi làmb moo doy xeetu doywaar goo xam ne saa yoo baree daan ñëwut kuñ ko jiiñ làmb làmb la mais ménage yu jàmbur ménage jàmbur la. bokkul ci làmb ji de. nañu ko bàyyi mu dund ak soxnaam ci tranquillité moo gën mais moom su ma amee benn conseil bu ma koy jox. moom papa booy jinne mooy bu mu déglu kenn bu mu déglu kuy yàq xelam. mais na gën a ne gën a góor góor lu xool li nga xam ne tamit moo koy xañ mu bañ a rëy. mu dem uti ko mooy comme li grand loo wax léegi. Mhm. parce que làmb du ñëw rek bëree. déedéet dafa am yu ci nekk. làmb du ñëw rek bëri. ca ginnaaw nga koy defar doog a ñëw. làmb dañ koy defar. <laughs> balaa ngay ñëw. combat waaw. da ngay compétir nii rek. maanaam da ngay ñëw rek mottali quoi xam ne li ci ginnaaw làmb moo gën a tar <laughs> bëre téeméeri yoon. <laughs> na defaraat na defaraat li ngay wax xam nañ ko de. na defaraat entourage xool tamit taxawaayam. comme saa yoo jëlee combat boo ñëwee di nga entraîné di nga bëre di nga xeex mais li lay xañ xamoo lan la. Mm-hmm. mais foog nga taxaw tamit il faut reculer pour mieux pour mieux sauter way mhm. su ma doonoon maay moom mhm. guddi yi mu toll nii tembe bu ñu jël benn combat na dem defariwaat yaramam bu baax a baax mhm. suñu paree ci bu Papa Boy Djiné jokkeel mi yaakaar naa bëre naag Jili Mbay waaw su ma juumoon waaw ay ndaanaan ci làmb rek la bëreel mais comme li grand dal loo wax dafa demoon ba benn instant mu mel ni ku xaw a découragé waaw découragé woon naa moom wax dëgg. waaw mooy bu ñëwee day bëre su ma daanee baax na. buñ ma daanee baax na maanaam du si du ci waslu àq. du ci concentration bi war ci biir combat bi sa boo ko xoolee moom mii doo ko ci gis. Mm-hmm. ba buñ ko daanee du am tamit gëw moon ne dina am impact ci moom. maanaam moom bu daanoo itam du ko. waaw niroowul woon ne dina ko def dara. Mm-hmm. mais gis nga làmb amul secret li Zallo wax gis nga boo entraîné tëdd heure def li nga war a def ñi nga war a ànd ak ñoom. am gétt kenn mënu la mm-hmm. mbër su mënee bëree am doole mm-hmm. ragalul xam tuuti fu muy teg tànkam mm-hmm. mën naa ub làmb ñi ub làmb sutu ñu la ëpp ñu la ki fi nekk roi des arènes bu ngeen taxawoon sutu la ëpp la mais xam nga lu ko fi mu nekk ngëm-ngëm lépp looy def ngëm-ngëm da ci am solo yaa ngi wax lu am solo wuri mat macha allah ngëm-ngëm bi am na ci solo baax yi jéeglu internet yi